double moteur yow da nga bëgg double moteur da nga jëf park wa tabarakallahu baaba waaw waaw attention waaye bàjj xaaral micro bi ñëw micro bi xool. xaaral micro bi ñëw ñu ko. daawa. micro sax. un deux trois. gars yi sa waa caméraman ku dee sa micro. caméraman yi ah bu baaxee rek ngeen di baax na. caméraman yi. waaye da ngay gaay Double ñu ngi lay maa ngi delloo ziar Babacar avant tout ñu sant yàlla di julli si yonent di sant suñu ñaari waajur di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jégalu suñu dëkkandoo yi bu baax a baax a baax waaw di sant gars yi fi teew tamit sama mbokku mbër yi nga xamante ne ñoo fi teew ku na mel ay Ada Fass ay Serigne Ndiaye ay Ndiakhoum ay Boy Pouy ay Mos Séeréer leen di sant ay Forza 2 ñu ngi sant mboolem mbër bu fi teew te bokkuñu kii ñu leen di sant bu baax a gërëm waaw di sant mbooloo mi fi teew yëpp nag waaw. tey ñu ngi mercredi fan yu néew des sa diggante fëgg la Double Moteur actuellement lan lay yëg nii fi mu toll nii ñu taxaw nii ci biir Rebeuss. waaw saa ndam rek la ñuy yëg ndam kese la ñuy yëg ndam kese la ñuy yëg ndam kese la ñuy yëg saa liggéey nañ ñu war a liggéey jour rek ñu dem yàlla may ñu ndam incha allah. yàlla may la ndam incha allah nga wax ndam ci. kan ak ci nan ci Feugeuleu nga wax. waaw ndam ci kaw Feugeuleu waaw. ci naka Feugeuleu lan maanaam ndam ci moom est yomb na pour yow. waaw ndam li moom ndam li moom yàllaa ko yor rek te yàlla lañ koy ñaan ñun liggéey nañ ñu war a liggéey def nañ lépp lu ñu war a def am nañu suñu mbokk kon li ci des dara def lu ñaan yàlla suñu borom rek may ñu ndam moo tax yàlla rek la ñuy ñaan ndam waaw. waaw Matar nee ñi ma sa bëreeg Feugeuleu ci ay xale mel ni yow da leen a freiné est-ce que duggoo ci ay risque non non ñun jëluñu risque ñun ay xale lañ ñun ay booy yu ndaw lañ bi ñu duggee si làmb yàggul di bay suñu waar yi liggéey foog la làmb moo ñu boole rek dëgg la moo ñu jiitu si làmb suñu grand la mais ñun dañoo liggéey ba war a bëre moom kon du risque ñun ay booy yu ndaw lañ ñun ñoo ñun ñoo soxla ñun ñooy uti waaw moom mënul nekk risque si ñun. waaw ah, da koo perte combat bi muy préparé digganteem ak Feugeula fan la ko combat bi mën a yóbbu bu baax est ce xam na ko waaw combat bi xam nañ fi ñu mën a yóbbu bu baax a baax a baax waaw parce que Feugeula champion la ndaanaan la bëri na fekk taakusaan bu nekk kon lamb yi ñun xam nañ fi ñu mën a yóbbu bu baax a baax a baax moo tax pare nañ ci côté yëpp nag waaw. dama gis ne mafia bi nga àndaloon. waaw ni ñoom Diakhoum ñoom Thiatou Rebeuss. waaw ñoom Sall Bawol ñëpp dañoo yàlla rek waaw di leen féliciter di leen bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ndam li jig ñu bu baax a baax parce que ndam li sunu ndam la ñu fam yëpp ndam yi sunu ndam la ñu ñaan yàlla ndam yi jig ñu te ndam yi gën a neex incha allah rabi. waaw foogale ci làmb ji laa ko xam rek xaw ma ko bu weesoo làmb ci làmb ji laa ko xam di ko seetaan muy bëree loolu laa xam ci moom xaw ma ci moom leneen. am lu mu wax parce que dama ko laaj mu ne du wax ak yow parce que du sa morom li ngeen seq mooy bés ba nga ñëw mu wan la ne moom du sa morom loolu loo ci wax ne na du wax ak yow mu cay micro parce que seexu ngeen ko waaw loolu amuñ dara duñ ciy wax dimanche yàggatul dimanche yàggatul incha allah waa double waaw ngay génn gox bépp topp sa ginnaaw est-ce que li du lii du pression si ñun ñun dañuy sant yàlla si lii rek di sant baax a baax a baax parce que amaana tey jii nii ñun ay doomu quartier bi lañ fi lañ juddoo fi lañ te ah, maanaam public gan si ñun du c'est la première fois yàgg nañ génn di jóobu ay public yàlla dañu suturaal ñu ñu may ndam kon maanaam amuñu amu mënuñu teg benn pression lii. waaw dëgg lu tax nga bàyyi feebar yëpp jël ndoxu suti ku ne xam ne fëgg la ci mën a bëreem ci frein yi muy freiné booy nga jël fëgg la loolu est-ce que amul pression tam. waaw ñun suñu objectif lenn la mooy dem ci kaw bokk ci mbëri fi man ñun suñu objectif loolu la moo tax duñu taamu ay ay mbër bi lii la mën wala dara ñun ñun fi ne carrière la ñuy def dañu ñaan yàlla tey jii nii dem ba tey roi des arènes bëre tey VIP yi ci kaw kon tey jii ne amul benn mbër boo xamante ne tey jii ne dinañ lamb dinañu boole ñu lay sóoraale ci dara non non. ngay ndaw dugg ci lamb ku ne xam ne tubaarkàlla mbooloo bi nekk sa ginnaaw bari na nga jëm arène nationale loolu lan ngay wax sa supporters yi. waaw arène nationale du si ñun parce que suñu combat bi mujj yaakaar naa fa lañ ko bëree te gis nañ liñ ko def te dafa tombé woon sax ñu jugee ci loolu dañ ciy sant yàlla baax a baax baax ñun tàmm nañ génn man secteur bi ma déggee génn dem di bëri ji fu ne wala dem di uti ji ñun tàmm nañ loolu noonu ñun tey jii nii même ba ci match sax bëre Demba Diop bëre Ami Dieng moo ñu gënal fu bëre Iba Mar bi ñu gën a jege seen diggante ak waa lamsaar yi caaro dama gis mu mel ni affaire bi yéen ak ñoom dafa mel ni daal tout temps yéenay bëri lu xew maanaam derbi boobu na nag maanaam lu indi problème boobu seen diggante waaw problème amu koy waxaat ñun yàlla moo def secteur bi ñu nekkee tey jii nii lamb daf ñuy booleeg ñi te ne si banlieue bi parce que tey secteur bii nii Dakar Plateau par force mën nañ dugg mën nañ génn lamsaar dugaat fa parce que ñun banlieue bi la ñuy bëreel yaa ngi dégg parce que tey jii nii du ñu jógee fii nii di bëre waa Medina wala ñuy bëre waa Fass wala ñuy bëre keneen kon ñun ak ñoom la moo tax banlieue bi la ñuy bëre moo tax du ñu bàyyi yooyu xel waaw léegi fan fan ngay mujjee parce que fi mu nekk nii affaire yi benn question benn question bii mooy sa deuxième euh, deuxième combat ci saison bi euh, morphologie bi changé woo état physique bi lan la da nga yokk masse bi tuuti wala da nga maintenir même muscle yi waaw ñun dañoo nekk ak sunu ay grand mu ku mel ni Cheikh Diaw Ibra Faye Balla Diop ak Talla ak Cheikh Bob ak Ebou Fall gars yi ñu ne entraîné combat bu ñu mën di jël adversaire bu ñu mën di jël rek ñoom ñoo ñuy ne liggéey liggéey liggéey ñu àndal ñun suñu entraînement dañ koy yokk mais duñ ko wàññi dafa yokk dafa yokk masse ñun xamuñu ñun gars yi ñooy gise rek ñun l'essentiel daal ñun chaque jour rek li ñu war ñun dañ ciy nekk mooy entraînement muy waaw di liggéey rek gàndaa ay yokk wala wàññi moom gars yi ñoo ko xam ko waxal maa ko dàq bëre maa ko bu doole. bokkuñu sax man moom. déggoo li ma la. Babacar lamb ji ngay musul gis. wóor na alxuraanu karim parce que moom dafa am amul. dafa am lu mu yaakaar ci lamb ji amul. lu na def très attention. lan la yaakaar. ah lu mu yaakaar. non fi ko teg moom xam boo waxee leen la ñuy wax. maa ngi koy gis sax yi. boo waxee dañ naan xeex bi avantage bu Feugeuleu la loolu la wa wax mais na moytu ñu nangu xeex bi ci moom waaw. foofu laa la foofu laa la bëggoon a laaj Double Feugeuleu dañu gis ne mbër la moo xamante ni dafa gaaw te yow combat yi ngay bëri yëpp en général da ngay jël sa temps est-ce que combat bi yaa ngi ciy préparé gaawaay bi. waaw mooy li ma la wax rek tey jii ñun dañoo nekk ak ay ay professionnel ñun ñu ñu nekkal ay professionnel lañ combat bu ñu jël adversaire bu ñu am. xam nañ niñ koy waajee bu baax a baax a baax a baax a baax parce que adversaire ñun yàlla dafa def maanaam ñii grand yi nga xam te booleel adversaire bu ñu am rek ñoom dañ koy cadré dañ koy cadré di ko suivre xam ko bu baax a baax xam ay qualité am xam ay quantité am di liggéey ak ñun si loolu noonu moo tax côté yooyu yëpp ñun pare nañ ko instant yi leen rek moo des di xaar jour yu jot yàlla mooy ñu dem ci kawam amul leneen. looy looy tàggoo ñu lay suivre ci waaw parce que fi bël bu rafet mu ne ndax da ngay xeex wala da ngay bëri. waaw bëri door la ñu wax moom bu dëgalee boppam. gaa yi dañ ne mënoo xeex de la gaa yi wax fële fële ko wax de. waaw ah. dañ ne mënoo xeex te fekk ñu daanu. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek parce que boo xoolee waaw ñun mënaguñu dara ay ndaw lañ dañuy jàng rek ay ndaw dañu dañuy jàng rek man sama supporter yaa xam duñu dara man yàlla maa dimbali supporter yi ma yàlla séddee lenn lañuy laaj mooy victoire soo demee arbitre yëgee loxo ñun ñu bi sax bëgg nañ ñun ndam rek lañ ma laaj kanda ay xeex yooyu noonu nag amul sens nañ ma dóor ba ma dee ma ni ndam. looy tàggoo léegi. waaw waaw li may tàggoo mooy li rek parce que tey jii dëggandoo amuñu seen fay parce que tey jii lii dafa li li yombul xam nga surtout waa jàkka ji nga ne tey jii nii ku sunu sunu sunu imam ñu ngi koy sant bu baax sunu sunu imam la sunu sëriñ la sunu xarit la daf ñuy ñaanal du may xaalis di ko gërëm di ko jégalu tamit di jégalu waa jàkka ji yëpp di jégalu tamit ñi nga xamante ne tey jii nii ñoo xam nga di woo gars yi ci combat bi nag parce que bi tamit métti na quoi arène nationale ku nga xam ne yombul xam nga kon dañ ciy woo ñi nga xamante ne tey mooy autorités yi nekk biir Dakar plateau fii nii tey ku ci mel ni sunu papa Diop si ñu ngi woo bu baax a baax a baax pour mu ñëw jàpp si biir yi bu baax a ay ministres yaa xam mbay Elimane Gueye taalibe Serigne Saliou ñu ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax a baax Mortala Gueye taalibe Serigne Saliou kooku kenn la suñu ñun mention spéciale Mortala taalibe Serigne Saliou dañ koy sant bu baax a baax baax di ko gërëm ndax kuy jàppale ndaw ñu la fii comprendre nga di sant tamit Seydou Camara bu baax a baax a baax di sant Cheikh di sant waa Kër bu baax baax di sant suñu waa écurie bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mbër yi ki ci ba ki ci ba ki ci a sant di sant sama benn grand boo xamante ne day sonn ci man muy Mour Diagne Mour Diagne bu baax a baax a baax day sonn ci dollar maa ngi bu baax di sant waa Pàkk Kajoor waa ko Pàkk Bool Bool yi les bu baax a baax di woo a baax soxla na ñëw jàpp si combat bi kaari bi yooyu masse pièce détachée aw ma fayam masse kooku kenn la si man dama koy wax chaque jour fi mu méttee la ñëwee moo tax dama koy sant bu baax a baax di ko bàyyi suñu borom rek lépp lu mu mën yàlla fulal ci barke Serigne Touba Mbacke muy masse di sant tamit yi nga xam te ne ñoo fi ku ñu mel ne ay Ibou Fall suñu bu baax la bu ñu amee combat da ci sonn bu baax a baax kontaan yi xam nga yi nga xam te ne